te ci bile centre dara amu fi lépp fi sëngam jur njàkkare gu rëy ci personnel bi ñoom ñile ci ay conditions yu metti la ñuy liggéeyee te lenn waralu ko lu dul ñàkk jox gëdd gi ñu leen ñàkk jox gëdd jóge ci seen kilifa. mais mayoon nit ñi conditions yi nga xamante ne lañu war a liggéey ndax lépp fi manqué fii boo duggee fii salle de soins urgence le minimum bi nga xamante ne personnel de santé soxla na pour liggéey amu fi du ca alcool. du gan du compresse du bandelet dextro yoo xam moom la ñuy xoolee diabète diabète te xam nga loolu dafa grave. du dara ambulance yi huit mois toog na fi amul ambulance mu leen waxoon conditions yi ñuy évacuer malade yi wala yu ñu tee sang da ngeen di jaaxle. ci biir bari lool ay saal yu tilim salte gi bari fi lool bile poubelle di fu ñuy denc archive hôpital bi mu mel ni rek bile hôpital feebar la daal di def ndax daanaka seen dara matul. ñëpp a feebar. am na koo xam ne simio lay def chaque jour dañoo dagg salaire cinquante mille lañ koy jox fii di jooyaatu ci biir hôpital bi ñun ordre zawel ñuy jox madaar yi ñu koy booleeg asib bi ñëpp am poumon man mi taxaw dafa yéen a ma problème mu poumon te fii laa ko amee problème bi nag mun naa man ko ñu dañoo sonn mënuñu di béy baabun di dundee loolu mënuñu ko mënuñu ko tey mënuñu ko ëllëg sonn nañu muñ nañu bokk na ci lu ñuy nakkarlu di yorin bu ñaaw bi nga xamante ne ni moom lañu fi nemmeeku tax na ba jamono ji lenn rek lañ bëgg mooy kii di njiit li daal di teggi ndomb tànkam. ndax wane nañu dañoo tële nit nag boo def ba tële nga fekkoon benn niveau niveau daanaka 10 nga yóbbu ko ba 1 wala 0 kooku kay tële nga lajj nga loo fay defati. ñoom leen war bu leen laajul dem ñu démission ñoo war a demal seen bopp may nu jàmm ñu mën a liggéey ak sunu xel mu dal